mboole mi euh, auditeurs ñu ngi dellu soit toujours sur émission euh, histoire du Sine et ñu leen waxee Sine fonctionnement ak limitam ak organisation ñu ñëw ci la cour royale c'est-à-dire buur bi buur bi fan lañ ko doon jël buur bi donc wax naa leen ci émission bi passé né gelwaar la dañ doon sét ci gelwaar ki nga xam mo ci mag ñu fal ko bour Omad Aseneki noonu lañ ko doon tuddee Omad mooy buur ci séeréer et eh, biñ defee bi ko kiyee bi ko falee ba pare buur bi dafa doon am ñoo xam ne ñoom ñoo ko gën a jege ñoo ko jege gën a jege mooy ñan mooy jaraaf mooy kan mooy bisik mooy kan mooy soxnaam bi nga xam ne gelwaar lay doon parce que buur bi su amoon téeméeri jabar itam téeméeri soxna su amee ci ñoom kenn gelwaar rek soxna kenn ko xam gelwaar rek kooku moo koy gën a jege mooy bokk ci la cour restreinte du roi donc ma ne jaraafi la euh, ñu sant seen waa kër maa ngi siga ak ñu sant ngom ak ñi ki nga xam mooy bisik sant Touré Touré yooyu rek dañ ci dellusiwaat pourquoi Touré ñu mën leen ñu nekk Sine dañ leen fan lañ jóge ba ñëw Sine euh, ci biir cour royale ba léegi jaraaf Famaak moom laa wax léegi moom dañ koy doon fal à vie kenn du ko fale mais mooy fal képp ko xam ne fal lañ ko Sine rek. ce dernier a euh, à l'élection irrévocable contrairement au roi il était le ministre de l'intérieur et de la justice en tant que représentant des hommes libres En parenthèse, les paysans et les éleveurs moom mooy fal ñëpp dañ ko une fois ñu fal ko kenn du ko dindi à côté amona ki ñu wax Sanki ñop Sanki ñop moy ministre de la défense chef des armées après mo am keneen beneen jaraf jaraaf Kambin mom nak ñu ko doon jël ci jalgi yi jal gi mooy ñi nga xam euh rak buur lañu doon ak ak ay cousin momo moo ministre chargé de la sûreté nationale et du prélèvement des impôts moo yoroon lépp loo xam ne doon Ar buur bi ba pare impôts yi mom moko doon laaj mu am Fara Mbin Kam moom moo nekkoon chef protocole buur moo yore itam lépp loo xam ne moo doon ravitaillement bu buur moo ko yore woon muy Fara Mbin Kam moo yore aussi comptabilité buur bi moo yore comptabilité buur bi xaalis beeg lépp luy ñëw moom moo ko moo moo ko xamoon mu dem après mu am saasaax kii wax saasaax saasaax nag chef de province la woon mooy doon lépp loo xam mo la doon liggéey moom moo koy roon moom tam impôt local yi local mom moom moo koy roon moo ko doon moo moo moo ko doon moo ko am jalg yi mom il était chargé de diriger les villages peul jalg de dëkku pël yëpp nga xam ne ñoo waroon ñoo waroon siin jalg yi boobu moom moo ko doon alors fi fa joggé am Euh, saltigi yàlla xoox saltigi euh, ni ñuy yàq tur bi ne saltigi mais du sal saltigi te saltigi boobu itam dafa am nu mu demee sali mooy ñaan ñaanal tigi mooy lu dëgg ñaanal dëgg waxal dëgg mooy saltigi en séeréer

comme saltige rek ni ko ni koy ni koy defee ci xooy suñu amee gi boobu borom bopp lay woodoon nag koo xam ne borom xam-xam la woon eh, kon nag auditeurs yi eh, ñu ngi leen di dox daje ci benn émission eh, dugaat toujours ci biir siin